maître Abdoulaye Tine ñu ngi lay nuyu di la dalal. waaw maa lay fay di la jaajëfal. nga jiite union sociale libérale tey ñuy wax ci euh, li nga xam ne moo fi xew jamono ji muy état d'urgence njiitu réew mi promulgué loi 2021 18 bi soppi loi euh, numéro 109 bu le 29 avril 1969 tey ñu am lu ñu def lu jiitu promulgation bi tey dégg nañ ci juriste yi wax ji lëmbe ci euh, mën nañoo wax ne dañoo viole loi bi waaw mën nañ jàpp ni sax lu ñu def Euh, euh, raw na violation wu loi mën nañ jàpp ni dañu jànnaxee dañu jaxasoo euh, lu koy firnaal moom mooy dañu ñëw gëmloo sénégalais yi que régime bu fi nekkoon régime constitution bi article soixante neuf régime boobu dafa yàgg dafa diis mm-hmm. et que il ñu soppi ko donc daanaka ñoom ñoo ware dañu bëgg a gedd régime boobu ba ñu geddee loolu li nga xam ne moo fi nekkoon ñu euh, war a tëgg benn loi mais loi boobu au lieu ñu promulguer ko ci délai yi. Mhm. ñoom rek a xam lu tax promulguer guñu ko ñu ñu jàpp seen cenn promulguer guñu ko donc état d'urgence bi constitution ne mënta weesu li mu fukki fan ak ñaar. Mhm. donc mesures yi waroon a dakk jeex ñu waroon a am. ngor euh, bu toy nii jégal sénégalais yi que liñ leen tënkoon jeex na. Mhm. ndaam ñu ngi préparé leneen defuñu ko dañu ñëw di jéem a ci xelu sénégalais yi naan di indi ay interprétation mais mbir mi jàpp a interprété parce que bu ñu signé décret le cinq. ne mënta weesu diiru bu fukki fan ak ñaar mhm. euh, wàññi bi day daal di yomb loolu yëfu mathématique la da ngay jël juróom teg ci fukk ak ñaar mu jox la fukk ak juróom ñaar mhm. donc mënu amul amul benn lint lint leen li nga xam ne mën nañ ko ci wax moo tax ma jàpp ni tey ñoom bu ñu ñëwee déjà ñu waroon def loolu tënkuwuñu ci mhm. mais encore dañu dal di parax paraxe mbir mi euh, ne gouverneur yi jël leen ay arrêté xam nañ ne sañ-sañ yu mel loolu gouverneur yi amuñu ko Euh, sudul période état d'urgence bu dee décrété wuñu état d'urgence amuñu sañ-sañ boobu lu koy firnaal moom mooy bu doon ñoom mën nañ am nañ sañ-sañ boobu donc lan moo nekkoon solo ñuy décréter état d'urgence wala ñuy tëgg loi bu bees pour état d'urgence sanitaire donc amul solo ça veut dire qu'effectivement chaque fois pour autorité yooyu mën am sañ-sañ ñi nga xam ne dañu mel noonu mm-hmm. il faut ñu nekk ci situation lu ñuy wax de euh, d'exception c'est-à-dire de police aggravée mhm. maanaam foog ñu am ay conditions yi nga xam ne moom mooy permettre ñu am cadre d'exception bi ci boobu la ñuy am sañ-sañ yi parce que maa ngi fàttali ni ñoom mënuñu jël ay dogal yu sut suñu constitution alors que suñu constitution moo ñu may sañ-sañ yooyu. kon daal euh, dogal bi mën nañ ko attaquer euh, ci ay juridiction waaw dogal boobu ku ci am intérêt. Mhm. wala ku ci am li ci mën a li nga xam ne dalay gàllankoor wala mu la ciy sonal. Mhm. wala ñu jël ay tuuma teg ko ci sa ndodd Euh, mu nga ko attaqué ci auto attekaay bi nga xam ne mooy cour suprême ci chambre administrative mhm. ñu joxe diiru juróom euh, juróomi fan ak ñett muy huit jours muy euh, li nga xam ne mooy datu prorogation bi tey mu am promulgation ci diggante bi lan moo ci soppeeku waaw lu ci soppeeku moom mooy déjà ñoom mesure yi ñu jël démboo amul cëslaay mais amul solo mhm. parce que euh, bu dee lu ñuy woote dëgg la maanaam régime ba fi nekkoon euh, donc adapté wul et que dañu tëgg benn loi bu bees pour yombal mbir mi boyofal ko mm-hmm. euh, lu tax démb ak tey daanaka benn la parce que couvre-feu bi ci guddi ji la jeex donc mënoon nañu xaar tey ñu dugal seen loi sukkandiku ci tëgg mesure yu bees yi wala au moins ñu jël arrêté Euh, pour benn wala ñaari bés. Mhm. mais defuñu ko maanaam ñu ngi dem ba juróom-ñetti bés. donc daanaka loolu déjà day tey xel da lay won ni rek euh, mbir mi daanaka mën a jàpp ni yi dañuy làmbatu et que def. kon daal da ngeen jàpp ne euh, dañoo réer daal. waaw mais ñoom ñoo réeral seen bopp. ñoo réeral seen bopp parce que dañu ñëw am benn dispositif bi nga xam ne mu fi. Mhm. depuis ba Sénégal moomee boppam. Euh, ñëpp di ko utiliser amuñu ci benn rëq-rëq mbas bi ba mu daanoo suñu kaw ndaam am na ay at yu bëri nga xam ne ñoo ñu séparé. Mhm. Euh, ci dispositif boobu la sukkandiku pour mën a gérer mbirum mbas mi fi amoon décrété état d'urgence bu laaj loi d'habilitation ñu jokkoo ko amul benn rëq-rëq bu ci am amul benn yéex-yéex bi nga xam ne mën na ko ci jooytu. Mhm. ñu jékki ne dañu fay ne ñukk lu fi nekkoon mais lu ñuy yóotu ci boppam euh, ñoom. amuñu woon fitu jëmal ko parce que ba léegi wóoloowuñu seen bopp loolu moo tax que finalement dañu ñëw fekk li fi nekkoon jeex na mais lu lu nar a ñëw jegseegul euh, loolu moo tax démb ba ci guddi euh, léttuñu Sénégalais yi firiwuñ leen dañ leen bàyyi noonu jékki-jékki di wut ay prox ndoll euh, wala ay explication yi nga xam ne yenwul maanaam parce que yéen yi soxla woo nekk juriste pour xam ne effectivement état d'urgence bi moom jeexoon na kon bu ma la déggee ngay wax maître dafa mel ni àndoo benn yoon ci état d'urgence bi non mbir mi euh, bañ ko décréter bu njëkk mhm. ci laa génn ne leen lii du ñu yóbbu fekk parce que mbir mi lu ñu war a def bu ñu bëggee mbir mi dox Mm-hmm. dañuy waxante dëgg du ñu naxante euh, du ñu naxante moom mooy lan ñu bàyyi toppandoo bi xam ne suñu société daa am ay réalité am nu muy doxee mm-hmm. euh, ñi nga xam ne ñoom ñooy def couvre-feu guddi ñooñu dañu am benn culture bi nga xam ne daanaka euh, ku ku génn liggéey da ngay dem restaurant wala nga dem théâtre wala nga dem cinéma ñooñu dañuy dox guddi ñun fii sénégalais ku ci wàcc pare mu ngi yàkkamti yegg këram donc loolu moo lay wan ni rek lu ñu tënkee Sénégalais yi dafa yokk problème teg leen fitna euh, diisal seen déplacement ba pare euh, yokk dajaloo bi ci transport bi ak ci kër donc loolu moo tax ma ne mbirum couvre-feu bi du ñu jëmee fenn par contre tax na ba askan bi mere gouvernement bi mhm. te mbir bu mel ni mënuñu koo réussir tant que amuñu adhésion population bi maanaam foog askan bi xam ne ñoom la ñuy bëgg a aar ne mënu aar ni contre boppam parce que li ngay jéem a jaay di jaay xëbalaateeg yooyu euh, sénégalais yi nag ay majeur te dépassé nañ âge ñu tiital leen moo tax foog ñu delloo si seen xel tey xam ne mbir mi nekkul di manipuler ay loi ak yooyu mais mbir mi ci geste barrière yi la war a nekk mais ci travail explication ak pédagogie la war a nekk. mu mel ni sànq si say biir wax ci kàllaamay nasaraan dafa mel ni danga am loo njott ne dañoo mbubboo état d'urgence bi rek mais am na lu ñuy waajal. waaw lu ñu nam dëgg ci yeesal bi waxaguñ ko Sénégalais yi. Mm. loolu aussi moo tax ñoom sax lañ ciy réer parce que entre lu ñuy wax ak lu ñuy jëfee day waroo. Euh, loolu tey maa ngi fàttali ci ne loi mille neuf cent soixante neuf Senghor mu ngi ko jàllale woon ba problème mu révolte étudiante bi amee fii université Dakar mille neuf cent soixante huit donc benn loi bi nga xam ne daanaka loi répressif la woon moo taxoon mu jël ko pour jokk boppam doole bu manifester yu mu war a am euh, tey Sénégal fu mu euh, gis nañ ne askan bi sonn nañ askan bi tey boo leen laajee dañuy jàpp ni nguur gi yërëmu leen parce que nguur dafa dem ba fàtte ni sax ci ñoom la ñu bokk fàtte seen réalité ñoom ñu ngi fayeeku seen salaire di jot seen i indemnité ba pare bëgg ñi dakkal seen liggéey alors que Sénégal dañu nekk ci dëkk bi nga xam ne liggéey euh, ak picc yi ñoo yem dañuy yeewu gën daw wuti lu ñu am donc finalement loolu boo tax que tey euh, ñoom am na lu ñuy tiit am na lu ñuy tiit mais aussi am na lu ñu nammul ñu ngi wax ay problème bu troisième mandat yeneen yu demee noonu donc ci yooyu nag ngay profité ci yenn régime yi jox sa bopp ay xeetu sañ-sañ yi nga xam ne suba ëllëg si biir peut-être bu loolu amoon ñaanuñu ko yàlla ñu mën ko dékku donc loolu laa jàpp ni ñoom daa am lu ñu rof ci biir loi bi euh, parce que lépp li nga xam ne moom la ñu avancé mhm. euh, pour euh, réformer ko boo ko saytoo da ngay xam ne loolu taxu leen a jóg mais mooy démb wax ci leneen maître Tine euh, muy mbiru Boubacar Seye jamono ji ñoo ngi wax ne dañuy ubbi information judiciaire ci mbir mi euh, moom ndax mbaa du mbir yi dafa fas yéene tar ci moom. waaw man mbir boobu mënuma ci àddu ci biir parce que duma avocat am nekkuma ci dossier mais en tant que politique en tant que citoyen sénégalais en tant que défenseur des droits de l'homme damay ñaawlu li nga xam ne noonu lañ ko pamti pamte parce que maa ngi fàttali ni euh, donc sëy nekk woon di génn wante da doon dugg ci biir réew mi da doon dellu si kon donc amoon na ay garantie de représentation dafa nekk kenn ki nga xam ne day saytu défenseur des droits de l'homme dafa am statut bi nga xam ne c'est protégé dafay jiite ONG humanitaire euh, di am li nga xam ne moom la ko yoon cëral euh, mu mën koo am ci waxam ak ci jëfam donc kooku boo ñëwee di jël yenn xeetu tuuma yi nga xam ne euh, ay tuuma yu sew la euh, daanaka yow sax da ngay sa bopp fayda moo tax ma jàpp ni tey sëy dem euh, téye buñ ko téye téye boobu jaay doole la c'est abusif. parce que yow foog nga ne dañ koo bëgg a noppiloo. mais loolu moom daanaka mën nañ jàpp ni ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi yëngu ci ak yelleefu doomu aadama loolu mooy seen quotidien maanaam ay pression ay intimidation mais lu ñuy def noonu safaan ñu li nga xam ne moom lañ ci namm moom lañ ciy gis parce que loolu lu def que lu dul yokk seen détermination seen engagement parce que lu mu lu muy laaj moom wa kulli alim foog mu leer et puis moom waxul tudd ma Samba tudd ma Demba donc mënul di fi diffamer état donc état du nit donc kan mooy jooytu dañuy wax kan la kan la saaga kan la tooñ wala kan la tuubaal donc dafa ne que li may wax mooy am na ay koppar yu jóge Union européenne loolu parlementaire union européenne wala ay député wu extrême droite ak ñu loolu mooy seen combat mooy lan du ñu jël suñu impôt di ko joxe pour ay dirigeants africains bi ñëw di jënd ay sato sur la côte d'Azur donc loolu débat bu yàgg la ci relation internationale donc moom lu mu def moom mooy rek fàtte bi loolu et que lu muy laaj euh, méttiwul méttiwul surtout warta warta sax ne jafe pour benn pouvoir bi nga xam ne cheval de bataille am reddition des comptes la woon moo tax tey bu ñu ñëwee ñuy gis traitement bi def ñuy jaaxal et que ñu ngi njort ne que euh, fii ak ay waxtu danañ ko bàyyi mu dellu ci ay njabootam. merci beaucoup maître Abdoulaye Tine. jërëjëf soxna si ci dalal bi. Mm-hmm. nga jiite euh, union sociale libérale jërëjëf. jërëjëf.